bi ñu taalif lii booba jaam dafa yaatu te bari ay àtte muy tudd nag goreel ak buñ goreelee nit kilifteef ga kan moo koy moom ba kookee ñu goreel ba mu soppi ku gor bu faatoon te amul ko war a donn ka moom kilifteef ga donn ko jaam bañ sañ a goreel day doon jaam boo xam ne ak ki jaambur ajuwu ca fekkoon ne jaam ba dafa rey bakkan wala mu dagg cërub jaambur wala mu fab alali jaambur loola kon àqi jaambur da caa aju li fekk lijjantuwuñ loola des ko mën a goreel jëmmi ka nga xam ne mooy goreel dañuy sart mu nekk mukallaf gone sañuta goreel te itam muy ku sañ a soppandiku ci alal koo xam ne sañuta soppandiku ci alal ni ki ab dof ak ña nga weesoon rek xam sañu ñoo soppandiku ci alal kenn mënu cee jekki-jekki goreel ba nga nee nag jaam ba àqi jaambur bañ caa aju muy jaam ba ñi goreel boole woon nga ci kon moom mi bëgg a goreel bari ay bor ba nga xamee ne su fayee da cee yem wala bu fayee day jeexal kooku sañu te goreel ndax ca dëgg-dëgg moomut alal ja mu yor jëmmi ka nga xam ne mooy goreel dañuy sart mu nekk mukallaf gone sañu te goreel te itam muy ku sañ a soppandiku ci alal koo xam ne sañu te soppandiku ci alal ni ki ab dof ak ña nga weesoon rek xam sañ ñu soppandiku ci alal kenn mënu cee jekki-jekki goreel ba nga nee nag jaam ba àqi jaambur bañ caa aju muy jaam ba ñi goreel boole woon nga ci kon moom mi bëgg a goreel bari ay bor ba nga xamee ne su fayee da cee yem wala bu fayee day jeexal kooku sañu te goreel ndax ca dëgg-dëgg moomut alal ja mu yor aji goreel ji mën naa doon jullit mën naa doon yéefar mënees na ni nag bokk na ci sàrt yi tax bu goreelee moom kilifteef ga ndegam jàmm ba jullit la moom mi ko goreel na nekk jullit waaye bu doonee yéefar moom goreel ab jaam boo xam ne jullit la it du tax mu moom kilifteef ga kañi goreel nag muy jaam ba muy jullit ak muy yéefar dutee ku ci nekk des na ko goreel mën ngaa wax nag ne bu defee lu ko yoon sant goreel faw jaam ba muy goreel jullit lay doon mooy raqaba mu'mina waaye du nekk ab yéefar bi si xëtin jéem wax nag mooy waxin wa nga xam ne moom lay wax ba yoon xam ne moom mi goreel na lislaam daa fonk waxin woowu ba lépp lu muy tudd ci xeeti àttey rek dana ca boole siixatu boobu ci ki bu ne ko an taqtuka goreel naa la wala anta xurrun wala anta muharrarun xeeti waxin yooyu nga xam ne wane ne goreel na ko loolu mooy waxin wa bu goreelee ab jaamam nag te néewu ko sa alal bokku ci kon kooku day gore ba noppi yóbbaale alalam bu ne ko nag goreel naa la waaye damay fab sa alal kon moo moom alal ja amub jaam nag taxul nga sañ koo def loo ko warta def ku amub jaam mettital ko niki dagg ab loxoom mbaa baaraamam mbaa noppam yoon day jekki-jekki ne goreel na ko te doo ca mën dara ku goreel lenn ni jaamam doonte dane ko goreel naa sa baaraam rek mbaa sa bopp rek mbaa sa tànk rek moom mu ne ko goreel naa sa genn wàll mbaa sa kaar yépp ñoo yemoo yoon day àtte ne jaam ba lépp lépp a gore moo xam moom ci boppam fekk na mu woomal wala mu ñàkk ñoo ci yemoo te wax ne ko jaam bi lépp gore na su fekkee nag moom ma goreel lenn jaam ba fekkutoon mu moom lépp da ko bokkoon ak keneen ñu koy wax ne ko ndegam yow woomal nga dañu remboursé wàllu ki nga ko bokkaloon nga fay ko wàllam te jaam bi lépp gore ndax yow soo moomoon lépp bi nga gorele leenam lépp day gore kon ndegam moomoo lépp itam te mën ngaa remboursé kee wàllam fayal kee wàllam te jaam bi lépp gore su fekkee ndegam nag dafa ñàkk ba mënta fay loola dañuy bàyyi rek lam ca moomante goreel ko gore lam ca moomutoon ci jaam ba bañ a gore mu ne bu dee moo moomoon genn wàll ga kon jaam boobee soppe ko ne yaari genn wàll genn wàllam gore genn wàll ga bañ a gore ab bis mooy moom boppam ab bis ka moomoon genn wàllam moom bis boobee jamono yi jaam amee la ne du nangu ko moom cosaanam ñu ne cosaanam mooy baayam ak maamam ju góor ak maamaatam ju góor jëm kaw ak yaayam ak maamam mu jigéen ak maamaatam mu jigéen jëm kaw mbokk itam lu ñu mën di bokk rek moo xam day dong moo xam baay dong moo xam day ak baay ñii ñëpp daal mënee su leen a moom def leen ñu di ay jaam ku ci nit ki moom rek kooka daal di gore li may nag nit ki bari ay bor ba nga xamee ne bu fayee jeexal wala bu fayee du matal ba noppi nag jël ci alal joojee jënd ca baayam mbaa yaayam mbaa kenn ci ñu ñu wax su boobaa nag dañuy jàpp ne ca dëgg-dëgg alal jëm jënde ñooñu moomu ko borom bor yaa ko moom lu tax kon kookee mu jënd gore ndax ca dëgg-dëgg kookee mu jënd du ak moomeelam moomeelu borom bor ya la waaye max naa ma ci gën a leer daal mooy nga ne wa diinu fii it tafaqaa maanaam ka goreel balaa moom kilifteef ga ndegam jaam ba jullit la day fekk moom it muy jullit ne moom moom mi ko goreel waaye ab yéefar su goreeloon jaam boo xam ne jullit la it du tax mu moom kilifteefu jaam boobee doonoon jullit te gore kilifteefu jaam boobee day dellu ci mbooloom jullit ñi jëmmi kilifteef ci boppam addis ba daa wax ne ak jegeñaale la gu mel ne jegeñaale askan kan nag mooy moom kilifteef ga mu ne te goreel jaam ba am na ñeent sar yoo xam bu ca dajee mooy moom kilifteef ga nga xam ne su kooka faatu woon te bàyyiwul kenn ko war a doon mooy moom kilifteef ga moo koy doon su fekkee ne am na koy doon waaye day des ba tey mooy jël des wa sart ba ci njëkk mooy kamu goreel mu moom ko su ko keneen ne woon goreelal ma sama jaam ba mu daal di wax jaam ba ne ko sa sang bi nee na goreel na la sangam boobee mooy moom kilifteef ga waaye moom mi nga xam ne moomu ko woon bu mu doon jaam ba daa jotali rek goreel ga du moom kilifteef ga ñaareel ba mu goreelal ko boppam waaye su ne woon ab jaamam goreelal naa la sama soxna si mbaa saa doom ji mbaa saa baay mbaa saa yaay kookee mu ne moom la ko goreelal kookaay moom kilifteef ga waaye moom ci boppam du moom kilifteef ga ñetteel ba mooy ki nga xam ne moom moom jaam bi ba di ko goreel fekk muy gor jaam mën naa am jaam ne moom bu ko ab sangam ne woon may naa ndigalul goreel jaam di goreel jaam ne moom du tax mu moom kilifteef ga sang boobee ku may ndigal ba mu goreel mooy moom kilifteef ga ñeenteel bi nag mooy ki moom jaam bi ba di ko goreel ak jaam ba ñu bokk jenn diine ab yéefar su goreeloon ab jaam boo xam jullit la du tax yéefar ba di moom kilifteefub jullit boobee dañuy jël kilifteef ga yóbbu ko ci moomeelu mboolem jullit ñi nga xam ne su jullit boobee faatu woon te bàyyil ko war a doon alalam day dem bayti maal baabu tadbiiri lii mooy buntub gannaawal gannaawal mooy wax sab jaam ne ko su ma deexee gore nga am na baat yoo xam ne su bëggee gannaawal moom lay wax ñu xam ne gannaawal na bu ne ab jaamam anta mu dabbar aw dabbartuka gannaawal naa la wala anta xurrun xan duburin min nii waxi ni mel noonu yépp waxinu gannaawal la mooy rek su ma deexee gore nga bu waxee ab jaamam loolu nag du tee bu dee jaam bu jigéen mën nay joteeg moom muy góor muy jigéen mën na koy liggéeyloo su fekkee demul ba tawat tawati faatu itam mën naa nangu alalam waaye nag bu demee ba tawat tawati faatu du sañ a nangooti alalam kum xas gannaawal nag moom du ko mën a jaayati du ko mën a tayle lim koy waxoon ne koy su ma deexee gore nga lay tax kat mu gore mooy sulusu alalu sang boobu faatu mën a génne xaymay jaam ba bu sang ba faatoo dañuy xayma alal jam bàyyi jubakkut ak jaam bi xayma nag jaam ba nam toll boole koog alal joojee ndegam nag xam nañu xaymay jaam bi buñ seetloo xaymay jaam ba ak alal jam bàyyi ñu boole leen def ko ñetti xaaj te benn xaaj ba toll ne xaymay jaam bi mbaam ëpp ko kon jaam ba léppay gore waaye su fekkoon daa bari bor ba nga xamee ne amul sax ñu tudd ceru alal mbaa dara lépp dañ koy fayee bor kon jaam boobu mu gannaawaloon du gore buñ xayma woon alal jëm bàyyi jëpp jëpp mu nekk ñaar fukki junni ñu xayma xaymay jaam ba mu tolloog fukki junni boo boole lépp muy fanweer xam nga fanweer boo seetee ab ceeram mooy fukki junni te fukki junni yi moo tolloog xaymay jaam bi mu gannaawaloon kon jaam boobu léppay gore waaye su fekkoon ne xaymay jaam bi fukk la la sang ba bàyyi di juróomi junni rekk boo boolee xaymaam ak la sang ba bàyyi lépp day doon fukki junni ak juróom kon xam nga fukki junni ak juróom juróomi junni moo di ab ceeram dañuy seet kon ceer ba muy juróomi junni lu mu tolloo ci xaymay jaam bi mooy genn wàll ga ndax ne nga jaam bi xaymaam fukki junni la kon sulu su sangam bi mën naa dox ba ci moom ci genn wàll ga yem ca kon jaam boobu ñu gannaawaloon ak genn wàll mooy gore genn wàll ga bañ a gore bu waxee ab jaamam ne ko buñ àggee dele sàngam ma goreel la kooko moom du ko sañ a jaayati du sañ a joteeg moom maanaam bu dee jaam bu jigéen du sañ a joteeg moom ci sawukaay mën naa nangu alalam bu dele ba jegewut waaye bu dele ba jege sa itam du sañ a nangooti alal ja moom nag faaw rek bu àggee ci dele ba daldi gore bu fekkoon ne sang bi daa bari yoon bor itam dañuy jekki-jekki rek ne gore na buñ ne dañ ko goreel ci rësu maal ba mooy dañ ko goreel ci lépp alal ja mooy rek bu fekkoon ne moom dong moo fa nekk it day gore ul kitaabati lii mooy buntub njotoo wa umil waladi ak umul walat umul walat umul walat day firi ndey doom tayit ca dëgg-dëgg noonu dong la ndax mooy ku am jaam bu jigéen joteeg moom bam am doom mbaa boog agu ci am doom waaye amoon na xëy na ëmb ba sikk jaam bi bu ko ab sangam nee damaa bëgg a jotoon te yow nga jox ma nangam ci alal te ma goreel la lu tax ñu wax ne jaam ba loola war na ko suñu koo bañ xakay mën na ko ne man de loolu mënuma ko naa doon sab jaam rek ndax xam naa lool bu ci duggee itam du sotti da koy neex rek jubu ko waaye duñ ko forcé ci faaw nga jotoon teg sa sang bi ka moom jaam ba bu fekkee sañ naa soppandiku ci alalam kenn yiiru ko sopp nañ ci moom mu jotoon teg jaam ba bu jaam ba nangoo ndax lislaam dafa bëgg goreel te jotoo googu day indi ak goreel ndax bu jaam ba fayee lañ koy laaj rek dal di gore kon jotoo lu ñu sopp la su waxanteeg ab jaamam ne ko nan jotoo bañ dugg ca loola kon gannaaw bañ duggee ci njotoo ga jaam ba ku mu jur mbaa fekkoon sax mu ëmb ko rek daal di dugg ca njotoo ga nga xam ne bu jaam ba fayee loolee rek daal di gore doomam jooje itam daal di gore jaam bi jotoo ko sangam nag li fekk joxeegul lañ koy laaj lépp lépp lépp kon ab jaam la ba tey bu joxe woon la ci ëpp ba mu des benn dërëm te joxe gu ko it du tee rek atteeb jaam lay amee su fekkee nag wax nañ ba juboo ji na war a fay alal njotoo ga ni ki weer wu ne mu joxe nangam mbaa pañetti weer yu ne mu joxe nangam mbaa at mu ne mu joxe nangam ñu topp ko topp nag loola mënu ko bu ko sang bi ne yow kat lan waxante woon mënoo ko kon nag delluwaat nga di sama jaam na nga ko doone woon jaam ba bañ kon da ko yóbbu ci àttekat ba su demee ci àttekat ba su ko àttekat bi dee muñal ne ko fexeel ba fay li fekk sàngam loola baax na su ko muñalee nag bañ disiwaat ci kanamam te ay la yéwén jaam ba bëgg naa gore waaye mënta fay lañ koy laaj àttekat bay àtte ne ko yow kat ci dëgg-dëgg tële nga delluwaat nga di ab jaam na nga ko doone woon te bu boobaa nag du sañ a bañ sang bi su jotee jaam bu jigéenam ba jaam bu jigéen ba ëmb rek dal nay soppiku moom jaam bu jigéen ba umul walat moo xam ëmb ba yàqu na moo xam dem na ba jur ko luy doom julee léng dal nay soppi umul walat nga xam ne du ko mën a jaay du ko mën a maye du ko sañ a liggéeyloo sax liggéey bu metti da koy téye rek ba faatu bu faatoo rek te fekkutoon mu goreel ko umurwalat boobee daal di gore jaam bu jigéenam boo xam ne daal xas la am ak moom doom moo xam doom jàng fa moo xam nekku fa wala du ko sañ a jaay du ko sañ a wax ne ko da ngay dem di liggéey di fay weer di ma jox mbaa yu demee noonu man la koy liggéeyloo daal liggéey bu néew rek ni ki baleloo ko mbaa ne ko lalal ma laltaay yu demee noonu liggéeyu woyof rek la koy sañ a liggéeyloo sañ naa joteeg moom ba tey nag su ko soobee itam bu amee alal mu nangu ko lu may nag mu dem ba tawat tawati faatu bu xasee tawat tawati faatu moom sañ a nangooti alali umul walat boobee saa yu faatoo rek nag umul walat boobu daal di gore nga xam ne bu ñu nee day goree ci resmal bu mooy bu fekkoon ne moom dong la bàyyi itam bayu jën alal du tee moom mu gore jaamam bu jigéen nag da nga xam ne moom la am ak moom doom nag mën ngaa def doom ya ñetti xaaj ku mu juróon njëkk muy am ak moom doom kooka moom jaam bu sotti la lu mu sañ ci jaam rek sañ na ko ca doom joojee mu amoon njëkk muy am ak moom doom nga teg ci nag doom ji mu am ak moom moom gor la ndax nee nga woon kenn mënta moom sa doom mbaa sëb sët kon jàppal ne sa jaam bu jigéen boo jotee moom ba am ca doom doom joojee moom góor lay doon gannaaw bam doone umul walat nag mooy am naa yow doom soo ko may waatoon mu sëyi feneen mbaa mu dem njaaloo amaat ca doom nga xam ne amaat na doom daal ci gannaaw bi mu soppi ko umul walat doom joojee moom yaay ji ñoo bokk àtte doo ko sañ a jaay doo ko sañ a maye ni waxoon ci yaay ji ne yow mi sang bi boo génnee àdduna rek umul walat bi daal di gore doom joojee mu am ci gannaaw bu amee yow doom it noonu lay mel bu yaay ji goree rek moom itam mu gore day waral gore yaay ji nag mooy sang bi jekki-jekki goreel ko mbaa mu faatu rek yoon goreel ko